leeral li ñu li ñu li ñu Adama Fall Adama Fall mu ngi fii bëgg ñu gën a nekk tribunal non dama ne non li ma li ma non attends attends donc heure bu Amadou disponible je d'accord je d'accord que vous avez des éléments mhm. qui sont là-bas ah donc ñun am na ña fa ne ñoo xamante ni ci réseau sociaux yi la ñuy partagé. en live en direct te li ñuy wax kenn du ko dindi. donc ce que je dis. mooy ay avocat ay avocat ay avocat Ousmane Sonko amul beneen ku dugg ci dossier bi ku bees ku bokkul ci avocat ya nekk ci biir. saa oh, ok te tey ah, tey tey tey la ñu constitué wu. Mhm. en avocat pour Ndeye Khady Ndiaye. d'accord pour pouvoir prendre la parole. la parole. n'est-ce pas. Mhm. parce que renvoi ñu bëgg parce que dossier su ci nit ku bees avocat bu bees duggee. Ah. da am renvoi. ñu delloo ko le temps que nest pas ñoom it ñu dem xool dossier bi. Mhm. xool dossier bi mais li ci nekk mooy c'est dans la stratégie c'est a bonne guerre am nañ ci droit. parce que mhm. ñoom dañuy xool buntu porof ndoll bu ñuy utee bu ñuy amee renvoi. Clédor sax dem na ba nee na la suñu suñu moom mooy dem jëli waa ji. pas. donc bien sûr wax na ko ci biir avocat ci ci biir tribunal Euh. nañu dimbali sénégalais yi. Adama <laughs> nañu dimbali sénégalais yi est-ce que duñu bàyyi ñi nekk tribunal nañu dimbali sénégalais yi. waaw mais moom tamit na information sëñ bi damay wax damay non dama ne dama ne non déglu non aw ma ku may jaxase déglul wax dama ne dañu dimbali sénégalais yi ñu vider affaire bii parce que saa yu amee samay doom say doom ay doomam ak keneen duñu jàngi mhm. te nit ki tax su may suñuy doom duñu jàngi commerce yi di tëj moom moo waxoon sénégalais yi di dafa bëgg procès na ko juge bi déglu nañu protéger aji Sarr nañ ko bañ a rey nañ ko bañ a génne Sénégal moo ko waxoon ne dafa yàkkamti procès tey ñu andil ko procès mu bëgg ay avocat am bëgg taxawee taxawaay bi moo ñu waxoon c'est un dossier vide un dossier vide on doit le vider c'est simple que ça doyen